baro ñu nekk député Ousmane Sonko moo leen baataral campagne ñu nekk euh, falu maire wala député loolu itam lu ama am solo la beneen bi ci des mooy ci wàllu position parce que Ousmane comme yaa ngi koy wax bu ma d'abord ma ñëw ci wàllum ak ak yelleefam yi nga xam ne nee nañu dañ ko respecté. Mhm. ñun en tout cas am na ci yu bari yoo xam ne ñun ay témoin lañ ci parce que ay taskatu xibaar lañ. ñu ngi ci lié am na euh, information euh, yi ma jot a recueillir si biir salle bi. donc fi mu ne nii euh, dix heures vingt quatre minutes bi mu jotee gis nañ ne yëf yi door na si biir salle d' bi. Mhm. chaque partie maanaam avocat bu défense bi ak avocat bu partie civile bi. Mhm. ñoom ñaar ñëpp aura une une heure trente. waa une heure trente maanaam une heure de temps ak trente minutes. pour plaider selon le juge. Maître Ousseynou Fall déclance les hostilités. Mhm. Donc c'est une euh, entorse au droit de la défense. vous ne devez pas nous limiter donc ñoom kon mun nañu wax ne avocat bu défense bi avocat Ousmane son yi mhm. Euh, waxtu yi nga xamante jox na ñeen ko mooy maanaam une heure trente minutes moom maître Ousseynou Fall jàpp na ne euh, loolu dafa nekk loo xamante ni donc lu lu lu tuuti la dafa nekk loo xamante ni euh, war nañ ko mën a yokk donc ñoom moom nee na nag waruñu leen daal di limiter si waxtu yi nga xamante ni moom lañ doon jàpp donc moom nee na au minimum maanaam bu tuutee ba tuuti de quatre heures de temps sera raisonnable maanaam loolu war na xel yenu na maanaam. war nañ ñeen mën a jox ñeenti waxtu pour ñu daal di amal seen plaidoirie yi wax ne. Euh, juge bi ñaari parti yëpp la jox li nga xamante ni moom moo di une heure trente minutes une heure trente minutes nag xam naa dina xaw a gàtt si ñoom trop comme ni ko euh, maître Ousseynou Fall waxee euh, par rapport bu fekkee kenn ku si nekk rek bëgg nga bëgg nga rek daal di. Mhm. amal sa sa sa prédoire donc kii di euh, maître Ciré Clédor tamit. Mhm. daanaka euh, comme ni ko ki nga xamante ni maître Ousseynou Fall waxee noonu la ko rek daal di feeloo si wet gi mais juge bi nag dafa rek daal di euh, dafa finalement li nga xam ne rek moom moo di proposition mhm. donc on peut attendre à ce que ñu amaat li nga xamante ni moom Euh, leneen lu nar a tukkee si juge yi jëmale ko si waxtu woowee donc on peut dire que ne une heure trente minutes la juge yi daal di décidé maître Ousseynou Fall nag moom ak avocat Ousmane Sonko ñoom euh, quatre heures de temps la ñu la ñu pour ñu may leen ñu daal di ama seen prédoire yi ma ñëwaat léegi ne mhm. effectivement mu nekk lu lu am solo en ñu ngi doon vérifier euh, lan moo xew foofu la xam ne moo di ci diwaanu conseil constitutionnel mais ko ci euh, biir fii la nga xam ne moom moo di euh, ci euh, diwaanu cour suprême de Dakar jamono jii nii. en tout cas comme li nga xam ne wax na ko rek ci ñaari parti kenn ku ci nekk répartir nañ li nga xam ne moom moo di heure yi waxtu yi kenn ku ne li nga war a layoo comme la fois passée mais ñenn ñi nee nañu li ñu leen jox dafa daay tuuti dafa ndaw nañu ko ci ci loo xam ne nii final la waaw nañu ko vraiment nañu ko nañ leen ko yokkal tey ji tey war nañu mën a jël seen temps pour man bon Euh, nañu bàyyi yoon mu décider duñu duñu décider seen place mais en tout cas ñoom kenn ku ne ci ñaari cest tax ñu ñu ñu jël une heure de temps trente minutes jox leen ñoom ñoo ko xam waaye ñoom itam am nañu droit sàkku ñu yokkal lañ ko parce que boo xoolee euh, avocat yi Ousmane Sonko yi bari nañu naam avocat yi nga xam ne ñoom ñooy layal Mame Mbaye Niang bari wuñu noonu waaye ñii ñoo ëpp ñoom tey bu ñu jógee na une heure trente minutes dafay tuuti ci ñoom am na fu leer fu seen i argument gën ko argumenté bu ko defee ñu xam exactement euh, euh, mbir yi fan la féete procès final la. effectivement fële ca conseil constitutionnel ci la di Abdoul Mbaye ancien premier ministre daal di trente mille euh, quatre cent soixante parrain avec dix sept mille deux cent cinquante quatre euh, yoo xam ne ay double externe la moom nag daal di nay mën a régulariser maanaam a mottali moom nag mi ngi validé ci lu toll euh, ci six régions ci au minimum sept régions yi nga xam ne en tout cas war na koo valider moo tax war na mën a régulariser foofu la ca diwaanu conseil constitutionnel ki ci war a topp nag mooy Alsana Sène ak ki nga xam ne moo di Alhassane Ould Aliou Niang ñoom ñoo ci war a topp actuellement kon ñu fas yéene ànd ak ñoom en direct euh, lépp loo xam ni mi ngi tukkee euh, file ci cour suprême d'ailleurs ñu ngi fii ci cour suprême mais en même temps euh, li nga xam ni mi ngi tukkee foofu la ca diwaanu conseil constitutionnel ñu leen koy dëkkal en direct fexe ba dara dara du leen ci raw lépp ñu koy am en temps réel ci suñu chaîne yi nga xam ni ñi ngi fi déglu jamono ji ni actuellement Alburax comme ni nga ko waxee encore file ci biir cour suprême de Dakar ki nga xam ni wala kon ñi nga xam ni ñoom di Euh, li nga xam ne mooy audience bi léegi mu daal di commencer parce que def nañu répartition wu heures yi kenn ku ci nekk jox nañ la euh, quatre heures de temps. Mhm. pour nga layool loolu la suñu confrère bi Waly daal di wax sànq. une heure trente minutes. une heure trente minutes <laughs> kon man maa juum euh, naa ñoom doon sa ñoom ñu doon sàkku quatre heures de temps yi. d'accord kon loolu leer na merci beaucoup merci d'avoir été là loolu rappel boobu am na ci solo bu baax a baax kon mi ngi noonu. ñu fa yéene rek euh, xaarandi ñu daal di euh, commencé yëf yi en attendant ñaari parti euh, kenn ku ci nekk sa ay position ñu leen koy dégtal en direct lépp li nga xam ne mi ngi fiy tukkee dara du leen ci en attendant foofu la ca diwaanu conseil constitutionnel. mais mais Cheikh man li ma li ma li ma seetlu ci procès yi ah au fait cest tey jëluñu benn arrêt arrêté ci ñi nga xam ne dañoo yor moto wala sax yor leneen gis nga tey dëkk baa ngi nii ñëpp ngi doxi seeni soxla. borom moto yaa ngi vaquer seen i préoccupation ndax nag ñoom à chaque fois li ñuy mooy bu procès amee gis nga leen du ñu liggéey ci journée boobu te la majeure partie ci ñoom ci loolu la yaakaar pour dundal seen ku njaboot dundal itam seeni i waajur buñ leen ko euh, tere dafay xaw a métti dafay métti tamit ci ñi nga xam ne par exemple dañoo yor boutique wala yor restaurant wala lu mu mën di doon ndax bu ñu defaree seen mbir ba pare dañuy woo livreur wala kum ci mën di doon euh, pour ñu yóbbul leen ko dafay dafay dafay cest à yi nga xam ne yu fi daan jaar ñuy tere moto yi di daw dafay gàllankoor li nga xam ne mooy économie surtout ñi nga xam ne dañoo yor petites de moyennes entreprises surtout ñi nga xam ne ñoo yor moto yeeg eh, yi ni mel dafa nekk mbir mu doy waar. alors maa ngi doon wax sànq ci euh, procès bi nga xam ne moom ma gënoon a marqué ci euh, procès yi fi jaar yëpp ci jours bi nga xam ne Ousmane Sonko fii la jaar fii. Euh, doon utali fi nga xam ne moom mooy këram depuis mu jógee tribunal la ca jot a xew ci wàllu lacrymogène ñenn ci ñi nga xam ne ay journaliste lañu kooku dafa mel ni Wally Waly xoolal ñu dafa mel ni avocat wu avocat kii la euh, mooy euh, maître euh, nu mu di son avocat français la bon je sais pas mais nañu ko ne rek. Mhm. wóoruma rek ba xam moom la. d' maa ngi leen wax sami temps ah, naan ñenn ci ñi nga xam ne ay journalistes lañ keroog ñëw pour couvrir mbir mi naam bu ñu solee sax seen gilet wala ñu wane li nga xam ne mooy seen carte presse terewul da leen a jël yóbbu leen. ñoo se rappelle très bien Sagna ci la bokkoon bokkoon na ci ñi nga xam ne yóbbu nañ ak ñenn ci ñi nga xam ne dem na leen a gazé mu nekk euh, euh, période boo xam ne période bu doy waar la. Mhm. ci wàllu diggante Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko boo xoolee tout tourne autour de Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko diggante tribunal euh, cité kër góor gi diggante tribunal euh, kër Mame Mbaye Niang diggante cour suprême ak cité kër góor gi tey ñuy def li nga xam ne moom mooy final bi Ousmane Sonko ma nga ca Cap Manuel Mame Mbaye Niang xëy na liggéeyi waaye terewul ba léegi turam ngay dégg. mu nekk nag bés boo xam ne nii ñëpp ñu ngi ciy bàyyi xel ñëpp itam ñu ngi toog di déglu fan la wànnant di mujj ki gàttam ndax nag tey la final. effectivement mu nekk loo xam ni comme ni ñu ko waxee rek euh, saa su ne euh, procès Ousmane Sonko même y a des yoo xam ni euh, Alburax ñu ngi ci àdduna bi ñoom à chaque fois bu ñuy laaj ci xew fii nii ci Ousmane Sonko lañ lay laaj. Hmm. maanaam ñoom li leen intéressé fii mooy Ousmane Sonko tout court tey comme ni nga ko waxee surtout bi su tey bi tey Sénégal Afrique.